tabaarakallaahu li ñu koy may nag mooy ñu bañ a yor jikkoy nagu njengal te yor jikkoy salguuf tabaarakallaahu te mooy lan eh, yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam moo wax ne dénk naa leen sama sunna ak sunnay xulafaawu rachidin na ngeen ci mooy matt koog seeni dëgëj tabaarakallaahu kon nag sunnay yonent bi ak sunnay xulafaawu rachidin mooy ndonay mag ñi te mooy tasawuf moom laa la wax ne la chia dañuy saaga saxaaba ahlu sunna wal jamaa dañuy saaga nitu yàlla yi waaye ahlu tasawuf dégg ko ñu ku ñu saaga dégg ko ñu ku suñu saaga musuñu saagab yonent musuñu saagab tabarakallahu eh, saxaaba musuñu saaga itam góoru yàlla xoola ku toll ni cheikhuna tijaani radiyallahu taala anhu bi taalubeem ñëwee ne ko dama bëgg a jënd kër mu ne ko fooy jënde kër gi mu ne ko maa ngi jënde kër gi ci barab sàngam te kër googu janoog benn wëluwi yàlla boo xam ne xaadir la tabaarakallahu cheikhuna tijaani ne ko suma ma sañoon nga wut beneen barab mu ne ko lu tax mu ne ko ndax kër gi yaa ngi koy jënd ci wetu nitu yàlla boo xamante ni ñàkk teggin sa digganteeg moom mën na la alak mu ne ko ñàkk teggin bi mooy lan mu ne ko nga tàllal sa tànk jëme ko ca kër ga rek mën na laa yàq mën na laa zàbbi xoolal waxuma wëli yu boo xam ne tijaan la waaye Cheikh na tijaan yi nee na kii xaadir la mais kilifa la ci tariqal xaadiriya génn na àdduna lu mat téeméeri at Cheikh na tijaan yi soog a feeñ waaye Cheikh na tijaan yi nee na waxuñu wormaal jëmmi wëli yu ba dem mais kër gi mu bàyyi nee na taalubeem boo tàllalee sa tànk jëme fa mën na laa yàq waaw léegi ana kon ana ana ana ñi jëloon euh, lacrymogène sànni ko ci zawiya Cheikh Sidi Hadji si bu ñu ko tuubul mën na leen indi li problème ana ñi ñu yebaloon Touba ñu lakk dëkk ba bu ñu ko tuubul mën na leen indil problème ba tax na soo demee ci suratul kaf euh, soo demee ci wa suratul kaafi la defe aha ci digante khadir ak musa musa toujours dama koy netali daf ne khadir damay ànd ak yow khadir wëlu yàlla du yonent waye amna ci xam-xam lo xam musa amuko musa ñaan ko ne ko ndax dama bëgg ànd ak yow fofu lang fay jànge moy wëlu yàlla du ne la kay ñu ànd yow yaay demandé pour ànd ak moom moo tax tarixa bi da nga koy jël mais kenn du la ko jox. du la woo mukk ba ngeen ànd. non non wala yàlla du woo kenn kaa ñu ànd. waaye boo ñëwee ci moom du la dàq. du boo ñëwee du la dàq. yaa naan ko dama bëgg a ànd ji nga Cheikh na Tidiane biñ ko joxee tarixa bi damraaw yi nekk ci wetam waxu ko mukk ne ko ñëwal jël tarixa bi de. damraawee dem ba yëg ne Cheikh am na leneen lu muy werd lu bokkut ak tarixa xalwatiyee bi mu ko jox. mu soog koo ñaan Cheikh jox ko ko. noonu itam Aliyun Harazim ميم تبارك الله علوي ينك في تي آه، محمد حافظ التجاني بنك موريتاني بيمو ديمي فاس بانيو جوخ كو ويرت بي نييو نا مي واخول كين نيكو كايلام لا جوخ ما جوخ لا بي تبارك الله غاي دانيو موجي رك غيس ني يور ني نيان كوكو موسو كو جوخي كوي جوخ دالاي جوخ شارتي بو بو نانغو موسو لا موتاخ نا خادر غيس nga ñun mais ñi ñuy critiquer ci mbañeel ak kañaan lañ ko teg waaye xam nen ne na Cheikhuna yi léppi yàlla la léppi yonent bi la léppi alquran la xadir Moussa daf ne ko dama bëgg ànd ak yow nga xamal ma li la yàlla xamal noonu ngay ànd nitu yàlla mu ne ko ci condition yi ngay àndeek man ak na Cheikhuna yi tam boo ñëwee ne ko dama bëgg a jël tarixa bi mu ne ko ci condition yi ngay jëlee tarixa bi jox la ñaar fukki charte yeeg ñett ban wute la am Moussa moo ñëw di jël nga xam ne tariqa bi kon boroom xam-xam bu toog ci wilaaya bu toog ci masuliya sax da koy jël moo tax ma ne la qaadi ma jaxate kala dem na ba nekk ab yonent boo xam ne ci wàllu wilaaya yonent la fii ci senegal ndax xam-xam ndax xam ñi mu jàngal ak ni fi nekkee qaadi di ate waaye xam na ne yeggagul ci yàlla <laughs> yaa ngi dégg waaye moo dem mu gisal boppam moom ci boppam mu jooy ne waman lii bi ustaazin fu may jëlee sëriñ boo xam ne aluusu bi wirdihi danaa mën a weeru ci werdam su ko defee werd boobu yaqiini yaqiinan kulla hawlin bi mawridi kon na mu demee seeti ku ko jox tariqa cheikh noonu la Moussa dem seeti xadir pour mu yeggale ko ci yàlla donte jàppoon na ne yegg na ci yàlla dafa am yegg ci yàlla goo xam ne dafa am beneen yegg goo xam ne moo leen di gënal waaw xam nga danga am koo xamante ni da ñëw toog ak Macky Sall di waxtaan ak moom waaye joxagul a genn benn uh, am na pal koo bëgg goo xamante ni mënoo caa yegg tabaarakallaahu loolu nag dafay laaj tabaarakallaahu uh, mu am ay jaar-jaar yàlla nag yebal ko ci xadir ndax yàlla mënoon na koo jox la mu soxla yëpp mais da koo yebal ci xadir xadir ne ko ci condition yi lañuy ñuy ànde léegi ànd boobu gis neen xadir def ñett yoo xam ne Moussa def ko tuddee bakkaar yàq gi mu yàq alalu jàmbur ci sharia bàkkaar la ah rey gi mu rey xale bi ci sharia bàkkaar la waaye defar ba mu defar tabarakallahu miir ba ah ci sharia yiw la ah ndax sëñ Fallou daan na wax ne jaamu yàlla ci nit ñi ah mu dellu ci aqimu salaata wa atu zakata nit da ngay am njariñ ci ñi nga nekkal léeg-léeg sa dëkkandoo këram taa nga ŋaccale ko léeg-léeg miiram miiram daanu nga jàppale sàkketam daanu nga jàppale ko mu yëkkati sàkketam tabaarakallaa léeg-léeg lakk am nga tànk ndox fayle ko tabaarakallaahu mu dellu ci eh, wa atu kon doone yàlla rek laa amal ñi ci des sama yoon nekku ci comme ni ko ñennat ñi dee wahabi yi ne ñun yàlla rek dañu gëm ñi ci des sama yoon nekku ci déedéet yàlla daf ne aqimu salaata mu dellu ci yàlla laa gëm mais nak wa atu zakata mu delu ci relation bi nga wara am ak jaamu yàlla yi ku la tane ci xam-xam dimbali la ku la tane ci wilaya dimbali la ko tane nga dimbali ko ku la war yoni yónni la nga dem ku la war digal digal la tabarakallah yooyu yëpp dafa delu ci wa atu zakata tabarakallah kon yonti yàlla musa nee khadir duma werante ak yow mu weranteeg moom ca ba mu yàqee gaal ga xadir ne ko ah, tere woon naa la mu ne ko jéggal ma mu ne ko jéggal naa la mu rey gone gi mu werante ceeg moom ne ko li nga def ñaaw na dayog ñaawte xadir ne ko waxoon naa la bu kuy ànd ak man duma laaj pourtant day Cheikhuna Tidiane yi wala sax tasawuf ci boppam xam nga tasawuf dafa am solo ba sëñ Tuubaa bind ci masalikul jinaan alaaji Malik bind ci euh, ifhamul munkiril jaani ifhamul munkiril jani moom la mujjee bind ak kifayatul raghibin pour wane ne ñaar yi lu sénégalais yi di sàggan lu taalu taalubeem yi di sàggan sàggan bu ñu sàgganee sharia bi muy kifayatul raghibin bu ñu sàgganee dégg nga tariqa bi muy tasawuf mu dellu ci ifhamul munkiril jani kon lii mooy dénkaane mag ñi ba pare mu waxoon seydu Nourou Taal ak sëñ kër Si ne leen dem leen zawiya ndar bi ngeen defar ko su noppee tasanteeg ma noppi ci sama ñaari téere yi kon nag dénk nañu téere yi dénk nañu barab yiñ ko war a jàngale mooy alaaji malik dénk nañu ñu sàmm xam-xam bi ñu bàyyee mooy sharia bi ak tarixa bi ak zawaya yi nga xamante ni bàyyi na ko fi ñu gën koo dundal kon ñu ngi góorgóorlu ci it ñu ngi sant bokk it fa ma ci Amérique dégg nga te Sidi Ahmed jiite ko bu maam Habib góorgóorlu bi ñu def ba jënd seen zawiya boobu seen zawiya bu mag boobu tabaarakallaahu ak lañ ci def ci alal yépp loolu dañuy dëggal amat mazayaahu bal daarat zawayaahu xadir ak yonent yàlla Moussa jéggal na ko ci ñaar yim ko critiqué mais xam nga ban la ko mënta jéggal bu mujj bi mooy bi mu jubbantee miir bi daal di toog nitu yàlla la nitu yàlla kenn du ko laaj da ngay topp ndigalam rek Moussa ñëw ne ko góor gi mu ne ko waaw mu ne ko waaw ñun kër gi dëkk bi yalwaan nañ leen kenn ganne maanaam yalwaan sax kenn du ab yonent du lekk sarax ñun ñëw neen ci dëkk bi kenn ganale ah di ñu xool ak seeni bët ah tey defaral leen leen miir bi waa nen dem ci kër gi buñ demee ñu wax leen bokk donte sax benn eh, ñeenti téeméer la ñu jox ñu ko su ko defee ñu wut luñ ci lu ñu añee mu ne ko Moussa mu ne ko ah, mu ne ko muñal naa la ci bi nga ma critiqué ci gaal gi muñal naa la ci bi nga ma critiqué ci bi ma reyee xare bi mais bii duma la ci mën a muñal mu ne ko lu tax mu ne ko parce que wali yu dafa jege yàlla mu ne ko dama liggéeyal koo xamante ni la ma cay yaakaar ci digganteem ak boroomam lii ma ko liggéeyal yàllaa may fayal boppam ndax yàlla li ko gën a neex mooy nga ñaqal nitam ma ñaqal góoru yàlla nga may laaj ma ciy laaj poñetum àdduna fii laay tàqoo tàqali ko yow waye bala ma takhliko ko yow nak dana la wax li xew wax ko nak gal ga wax ko xale ba wax ko nak ne ko gis nga mir bi mune ah, ne ko ñaari ma fi dekk seen doon ko seen mam joju wala seen joju la doon wut barke man barke bu doli samay maqama barke bu tax ma gëna a yalla ba bu yàlla amoon xol ma ne jot naa xolam looloo tax ma yëkkati miir bi mais du xale yi de wa kaana abuhuma saalihan kon dangay gis koy dajeeg yow gis nga dajeeg doomu sëriñ yëkkati dara jox ko mu ne xool leen doomu sëriñ si ñuy topp di di ci ray seen bopp te ñuy jànguñu xamuñu dara Seydi Alioune Harazim wax ne ne doomu Cheikhuna Tidiane yi nee na ko nekkoo lu dul jaam ci sama kër baay Seydi Alioune Harazim kontaan ci loolu ba daanaka da ko doon feetu nee na ndax Cheikhuna Tidiane doomam ah saxal na cautionné ne man jaam laa ci kër ci kër baayam sëñ Babacar si feelu ko hada ubayduka inda al baabi yaqra'uhu wa laysa ya'lamu illa <laughs> anta man xaahu mu ngi noonu gis nga loo gën a wàcc di yéeg waye lo gëna yek di wàcc alaaji malik neena maqamul abd zul neena abjam neena bu wacce rek yàlla yëkëti ko te nak yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa innahu lamma qama abdullah yad'uhu gis maqama yi gëna kawe yàlla yonent bi jaam la ko fay woyé subhanallazi asra bi abdihi laylan kon li gënoon a neex yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy baat bi gën xéblu xébu ñuko yàlla diko ko woyé tabarakallah kon euh liggéeyal sa sëriñ top sa sëriñ sop sa sëriñ bo démé ci xoqal bukaawu sëñ touba da fay wax ne euh bi xit bi bi xitmatin aw bi hubbin aw hadiyatin loolu nag tabaarakallaahu eh, du waxam moom sëñ Tuuba waxu mag ñi la daf ko nettali soo demee ci taayatu eh, taayatu suluk la téere boobu ci tasawuf lay wax da nga fekk loolu mbooleem téere tasawuf yi boo ci demee daañu la wax leen nitu yàlla ci ñett rek ngay jariñoo moom sopp ko jox ko addiya liggéeyal ko mas loolu leen bëgg a dindi naan Euh, euh, euh, xam nga wax bi mu wax ci rustum histoire boobu ñun ñëpp jàng nañ ko buuru pour faris boobu la ko waa ji waxoon ne dañoo bëgg a génnee nit ñi ci jaamu jaam jaamu jaam yi loolu bokkut ak lii bokkut ak lii tabaarakallaahu liggéeyal góoru yàlla sopp góoru yàlla ormal ko Euh, tabaarakallaahu jox ko addiya loolu du ak njaam loolu du ak njaam moo tax ñoom ñi nga xamante ni tey dañu bëgg a dàq loolu rey tasawuf rek moom moo tax mooy mooy seen projet waaye ku ne xam na ne liggéeyal nitu yàlla tabaarakallaahu euh, bokk na ci li gën a neex yàlla wax nañ ne yoon ci yàlla Moussa yàlla def ne ko Moussa defal nga ma lu ne nga foog ne mën nga ko defal fekk sa bopp nga ko defal mu ne ko jullil naa la mu ne ko wasjud waxtarib pour jege maa tax nga julli wooral naa la mu ne ko as-sawmu junna ki woor dafa tabax miir bu mag diggante mag safara kuy woor du safara joxel naa la azaka dégg lu mu wax rek aji naa màkk lu mu wax rek yàlla ne ko lii moo tax nga def ko loola delluwaat ci intérêt Moussa mu ne yàlla kon lu ma la war a mën a defal loo xam ne sa intérêt bopp lay nekk mu ne ko nga fekk jaam bu ma gërëm nga sopp ko liggéeyal ko ci sama jëmm tax loolu boo ko defee rek mën nga ko defal tabaarakallaahu moo tax mag ñi wax ne Cheikh Sidi Hadji Malick si fii ci ndakaaru alaaji Pedre Diop gis na ko muy jël ay taalibeem di leen dugal ci biir zawiyaam loolu nag du néew ya la doon jël yaa ngi dégg waaye jëlu maanaa la njabootam la doon inscrire ci listam ëllëg ñu ñu fa denc pour yowmal xiyaam du ñu jàdd fenn alaaji Malick direct nee na mu leen di jël ba jëlaale koo xam ne naankatu sàngara la woon Eh, ku jubadi la won ci bir dakaru radi pedal ne ko serigne bi ki nga jël day nan kato sangara la mom lan ko xamee won fi mune wante Pedre Mune ko labbeek Mune ko babakar sidey dafa massa santane santaane fi ci dakaru mu yenn won ci ben mool lolo tax ma rus ko fe bay kon liggéeyal goru yalla ci alquran histoire xadir daf ko indi ba moo tàqale xadir ak Moussa kon képp koo xam ne da ngay liggéeyal góoru yàlla wala nga sopp ko wala nga koy jox addiya mu taxaw ne la loolu na fa jóg soo mënee tàqalikoo ak moom tàqalikoo la ak moom ndax loolu sharia la alquran la ndax xadir fa la tàqalikoo ak Moussa même bu fekkente ni jullit la comme yow bu ko wax ne ko kii euh, yéeféer la de d'accord naa ne jullit nga nangam ak nangam wante nag mënatumaa def ak yow bu ko defee bu ko joxati sa nopp bu leen bokkati keppaar gu ngeen di waxtaane ndax sëñ Babacar si daan na wax ne sama ngembal soppe bëgguma koo gis tabaarakallaahu ñu baal ma kàddu gi ci sama taati noonu kon li ñuy dénk xale yi rek mooy ñu xam ne tasawuf fi nekk nekk ndénkaane boo xam ne moom la fi alaaji Malik bàyyi looloo tax mu taalif ifham munkiril jaani euh, sëñ Touba moom la fi bàyyi muy masalikul jinaan jàkkaam jii ñu tabax jumaa jii ñu ko tabaxal ndakaaru ñu tuddee ko masalikul jinaan masalikul jinaan tasawuf la yow mi soobu dañ lay ja dañ lay jàngal nooy def ba yegg ci yàlla te doo yàqule te masalikul jinaan téere bi euh, Mouhamad Yadali moo ko taalif Mouhamad Yadaali moom ak sëñ Touba fuuf taalif Masalikul Janaan muy muy Nasr di wesar sëñ Touba ñëw way ko dégg nga lu tax ndax su ko defee nazmu ci lay gën a neex a mokkal mu way ko waaye nag barke bi topp sëñ Touba Mouhamad Yadaali boobu nag sëñ Touba da ko bëggoon a bëgg bëgg ba moom la tuddee taawam taawam boobu nag dafa dafa teel a réer. motax ñu ñu bari foog ne mohammed Moussawa moy taawam mais mohammed yadali moy taawam legi xolal ñoñ tasawuf donte bokku ñu tariixa seenu bëggante bay tuddante doom ñoñ tariixa donte bokku ñu ñoñ tasawuf donte bokku ñu tariixa bëggante nanu ba cheikhna na Tidiane ne talubem ormalal kër diw ndax bo fa bo fa toge talal sa tànk jëme fa ñàkk xorma la te mën na laa yàq nga ñëw ci alaaji malik mu tuddee alaaji Abdou Kan Abdou Aziz Dabakh Abdou Aziz Dabakh borom Ibris Abdou Aziz Dabakh téereem boobu di Ibris Cheikh Sidi Hadji Malick si daf ko liir bi muy liir téere bi ñiine ba mu jeex ñiine ba mu yëgg ca biir ñu wax ko ne ko soxna si mucc na mu ne lu mu am ñu ne ko góor mu ne Abdou Aziz Dabakh Abdou Aziz Dabakh moomu ak alaaji Malick bokkuñu tariqa tabaarakallaahu kon ñooñ tasawuf dañoo bëggante dañoo ormalante dañoo soppante dangay gis ay ñaan yoo xam ne sax dañ koy jëlante ci seen biir yaa ngi dégg su ko defee boo demee tey ci tuubaa danga fay gis ñuy zikar salaatal fatihi tey boo demee ci ahlu sunna wal gis naa ci benn benn benn ibaadu boo xam ne eh, mu ngi osé di wax ne salaatul fatihi du julli goo xamante ni julli gu maanaam jógewul ci yonent bi sallallahu alayhi wa di wax ne aussi bidaa la tabaarakallaahu mais ñoom balaa ñoo toppatoo ne salaatul fatihi bidaa la ñoom bis bu ne ñu julli ba julli ci saxaaba yi te yonent bi mësta julli ci saxaaba yi ma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi koo dégg mu wax ko bidaa la ñoom dañ koy wax ah, bidaa la bidaa bi mësta yonent bi dañ ne ko xam nen ni ñuy sëlmalee ci yow dañoo bëgg nga wax ñu naka la ñuy jullee ci yow yonent bi ne wax leen allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fi lalamin innaka hamidul majid ana wa sahbihi foofu amu ci kon nag koo dégg mu julli ba ne wa sahbihi ne ko loolu bidaa la waaye bidaa bu rafet la ah bidaa bu rafet la mënuñu koo génne ci ci ci diine te biddaa bu rafet mu ngi ci alquran tabaarakallaahu su ko defee eh, ñu xam ne rek suñu mag ñi defuñu dara lu génn alquran ak sunna ñu xam ne yàlla nee na binduma leen di leen laaj wërsëg man soxlawuma seeni poos seen xol laa soxla illa man ata allaha bi qalbin salim tariqa nag ci loolu lay dox ci xal bu salim lay dox tariqa yi lii seen rôle mooy boo jëlee werd werd wi bu kañaan nekkoon ci yor yow werd bi war na ko mën a dindi bu soxor nekkee ci yow werd wi war na ko mën a dindi su bëgg àdduna nekkee ci yow werd bi war na ko mën a dindi dégg nga mbooleem tilim tilimu jikko yi su nekkee ci sa xol tabaarakallaahu werd bi war na ko mën a dindi ci kaw boo respecté werd bi def ko na mu ware looloo tax werd bi jóg werd bi maanaam day diagnostiquer xol bi ba lu ci nekkoon ci jikko ju bon dafay daal di dañ moo tax tabaarakallaahu bu àndeeg ndax werdu werdu Cheikh na Tidiane dafa ànd ak euh, appliquer sharia ba noppi ndax mënoo laazim maanaam mënoo werd te fekk fekkul nga julli suba ba noppi bu dee guddi gi sax mën nga jiita mais mënoo wadifa ci mbooloo te fekk julliwuloo suba ba pare mënoo wadifa ci mbooloo te fekk julliwuloo tàkkusaan ba noppi parce que ki julligul tàkkusaan mënta wadifa bu wadifa wadifaam baaxul kon lii baaxal sa wadifa mooy julli tàkkusaan gi kon sharia bi ak tariqa bi dañoo ànd dañoo ànd ànd goo xamante ni tabaarakallaahu fiñ naan la jullit piir nga foofa lañ lay waxee tiijaan piir nga tabaarakallaahu kon nag eh, waxtu waa ngi naj tabaarakallaahu ñu gën a tarkiis suñu wax ci xale yi bañ a fàtte seen ndono xam ne àdduna bi ñuy wut balaa ñoo dee yàllaa ko warlu dana leen ko jox benn mag dafa wax ne doomu aadama ñaari waxande la ko yàlla jox benn bi daf ne ko àttan nga ko yenul ko sa bopp mooy lan jëf ju baax maanaam tey jii foo jógee mën ngaa def lu baax xam nga lu la koy won soo bëggee jokk say mbokk mën nga koo jokk ci ñett mag ñi dañ ne ci ñett yi dul sax kawar la muy tënk bi làmmiñ wi ak tànk bi tey bu fekkente ne mënuloo dem ndax diis nga ci tànk nga gis kuy dem Koungheul nga ne ko boo demee nuyul ma mbokk ya jokk nga mbokk su fekkee ci jamonoy portable la nga xam seeni numéro koo ci woo daanaka dem nga ndax jokk nga ko ci ci ci làmmiñ su dee ne am nga ci wërsëg loo xam ne yóbbante nga ko ne joxal ma diw joxal ma diw joxal ma sama nijaay lii joxal ma sama jarbaat bi lii joxal ma nangam lii joxal ma sama bàjjen li ah jokk nga leen kon jokk mbokk mën nga koo def ci moment bu ne tey fii nga toog nii tàkku euh, euh, euh, maanaam tàkkusaan jullee goo ko balaa ngaa julli tàkkusaan mën nga naafila sa ñaari rakka fii nga toog nii tey su fi jongama toogoon loo ko nopp nopp nopp mu nopp la munoo mooy ak moom yàlla fii dafay jafe so fi bëggoon a sàcc dara da nga bàyyi ba nit ñi genn bala nga fe saga nit wax wax ko lu ñaaw da nga xol ba xam saga bi lu mu lay jural yaa ngi dégg waaye nag tabaarakallaahu alal ji nga waroon a sàcc nga ko genné ci sa poche fekk nit tok nga may ko doonte mo la ëppale sax nga jox ko ko tiyaba la joxe gir yalla sa kaddu ba nga ca waxe nit ki lu bax wala nga wala nga julli ci ci yonent bi wala nga wax ci la ilaha illallah ñu bindal la kon waxande wi nga xamanteni moy waxande wu def lu bax dang ko atan ba fula neex mën nga fa ànd ak moom di fa def di gagner ay tuyaaba yalla ne waxande wi diisul jox te benn bu bax bo def ma defal lako fuk bi benen waxande bi nak moy sa wërsëg yalla daf ne atanoko bayil ma lako bis bu ne ma set lama la cey jox ba sa mat te mang lay warlul ne amul ben ben pep bu toll ni atome buy wàññi ci wàññeeku ci sa wërsëg te duma la ko jox yow yàlla eh, yow yow sama jaam bi loolu yàllaa la ko warlul kon nag li la yàlla warlul de dana la ko jox looy déglooti politicien buy taxaw naan la soo ma kiyee danaa def dëkk bi nii danga nàngam ak nàngam mais njariñ loo fekkee am na ñoo xamante ni tey tabaarakallaahu def nañ seeni projet te fekkee wuñu ko tabaarakal am na ñoo xam ne jàng nanu ba nga xamanteni tay ji déposé nen ba wara xëy tay yàlla jël sen bakam ñu yek sen lijaz te te te te wuñ ko kon nak li am solo ba am solo moy ñu nangu ne suñu wërsek yalla ko yor muy tawhidul uluhiyyati ak tawhidur rububiyyati tawhidul uluhiyyati moy nga gëm ne yàlla la bind molay lay rey lay dekkal fan yi fi am di dundu moko xam mo xam kay nga fi jóge muy tawhidul uluhiyyati tawhidur rububiyyati nga gëm ne loy lek ci sa dund mo la ko jox loy sol ci yëre diko suturlo mo la koy jox foy dëkk mo la koy jox dom ya ngay am mo la koy jox lo fay am ci wërsëg mo la koy jox ndax ar rububiyyatu mu ngi jóg jóge ci ar rabb batu riba bi firi doleku loy doleku ci wàllu wërsëg rek ci yàlla lay jóge su boba nak do nek jaamu kenn kon nak bala ñu fi nek naan ñu jële len ci jaamu ki ñay wote lola ñom ñoy wo nit ñi pour ñu jaamu len ci seeni dik ak seeni fen wala yaasu billah kon nak ñu gërëm ñep di sant ñep tabarakallah di la sant bu baax di sant wilan TV di ñaan yalla yalla laqal ñu suñu pas-pas fu yaq yegul tabarakallah di ñaan yalla def ci rew mi jam di ñaan njabot gi ñu am muy xalé yi yalla na leen yalla musal ci shaytané يالنا لين يالله سام ظاهرا وباطنا يالله بنيو يقو يالله بنيو يقله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي جري جنتف يا كارنا ني وقتان وتي دفريس با جيغ دايو وخ دغ يالله ندخ بوين مو اندي دوغ فو نيك اندي ديمبو اندي الاسلام ديمبو اندي نيتو يالله اندي يوننتي واي اندي بوليتيك اندي لب اندي باس باس ام غوم ام سولو سي سونو دين اك سونو طريقه وانا لي تام ندوني دان لينا ورا ديلو سي دفنا بو نيب ديفون ني مو ديف ني يو بري دون داو ني فا ييغ كونون باسكو ني بري نا خامو ني ريك ndax démb ñu juddu jànguñu diine dañ koy fënatal nii rek xamuñu lu diine bu ñu gisul ku leen ko expliqué ba mu leer rek mën nañu weccee seen kilifa ak leneen te fekk waruloon mën a demee noonu waaye lii yaakaar naa ñi ngi ñaan yàlla mu yegg fu sore sore sore ba nit ñi mën ci jëriñu ndax waxtaan wi am na solo lool sëriñ bi